aca mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax tey ñu ngi fii ci jàmm gën ñëw ci dëkk borom dëkk bi borom dëkk bi nag buñ ko waxee mooy Siteu yalmin bi tarkindaa bi mbokk yi tey moom lañ seet si waaye xam ngeen ne mi ngi États-Unis ñibbiseegul waaye coow li nag bari na digganteem ak moom Modou Xarañ Lo le roi des arènes ñu toogoon nag kenn ci koo xam ne ci ñu jege boroom dëkk bi la muy baaba As tey ñu bëgg a waxtaan ak moom ci Siteu naka lay waajalee ñu bëgg a waxtaan ak moom borom dëkk bi fu mu toll parce que nag coow li bari na waa parcelle ñi ngi wax barki démb seeti naa góor a mbaxal dégg ngeen ni mu wax tey nag ñëw nañ fii bëgg a waxtaan ak ñoom naka la ñuy dundee làmb ji naka lañ koy waajee fekk nañ ñu ngi di garder ñaaw ñu ngi superviser bu baax a baax Mang ngi lay béggee kilifa di la siyaar. waaye ñoo ngi lay ziar Baye Fall bi. naka mu. waaye lépp jàmm gaañ tey ñu fekk leen ngeen préparer combat royal tey mu mel ne combat bi am na fu mu leen toll ngeen bàyyi seen yitte ci bundu kër Siteu di sécurité. la mais à part loolu ñoo ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan waaw affaire yi noonu la demee affaire yi gaañ ñun ñoo ngi si ñun mosuñu see jug affaire yi moom saa su ne ñoo ngi si quoi. Mhm. chaque jour ñoo ngi si affaire yi. Mhm. waaw saa moo ngi fee mais ñun ñoo ko nekkal fii quoi. Ah. waaw. ngeen jël combat bu bari coow kombaa boo xam ne ñii ñu ngi naan est-ce que du combine ñii ñu ngi naan est-ce que bi mun na daan Modou Lo coow li naka ngeen koy dundee ak non mais li moom yàgg nañ ko si di dund si làmb quoi ndax Siteu moom ku ko xam rek xam nga moom mbaru coow la. waaw ku mu bëreel coow li day takkar naa sa yaa ma gën a xam. yee mais ñuy wax loolu affaire commune ñooñu moom seen xel foofu la toll rek. Ah. mais mbooloo si jëmu boppam moo la gën a xam ne Siteu parewul pour commune ak moom. waaw Siteu bëre la ko gars yi sant bëre. Ah. te incha allah jour bi dina bëre dina fecc dina neexal estade bi dina neex te dinañ am ndam li incha allah. mais ñoom ñaar dañoo gisoon wax ñu woon waxi làmb dañoo doon ay wax yi ñoom ñaar ay goro lañ xaw ma nu mu demee di expliquer saar. Ah, mais loolu moo am sax. loolu moo am mais maanaam làmb tey du règlement du compte wala du affaire noono làmb affaire sport la rek. bu jeexee jeex na. mais le jour si tamit dañ leen a fay xaalis ku si nekk di nga ñëw xamal wane loo indi. ok mais xam nga comme lu si gars di foog loolu amul yeah modlo mo mu ngi si rukkam Siteu mo ngi si rukkam wa mais ñun mom ñu ngi si ginnaaw tarkindaa bi bam jeex tak tak tak duñ ci baye dara dara. ñu ne ciow mo len booleeg ak Lo. non mais loolu la gaay fook rek modlo ñu ñu bo ak mom tamit. kon lan len leen booleeg moom. Siteu dafa rampe ex ba ex fu mu wara ex wara war ak modlo Modou ñaata mbeur la fi bëreel fi ni bëri na. Yeah, beri na Siteu champion la fu mu jaar mbër bu fa jaar tamit man la sam li ngay ñaan yàlla bëri roi des arènes Siteu dafa jaar fu metti gaañaan barki alxuraan te nit ñi xam nañ ko Siteu fu metti la jaar moo la tey yàlla jagleel ko lii hmm? mbër bu si nekk buloo sañoon bëri roi des arènes barki alxuraan mais mais mais Siteu ñu gis ni ba mu duggee ci poids lourd yi tey bëri na ci ak Lac de Guiers numéro 2 mais dafa am jafe-jafe daan Lac de Guiers numéro 2 est-ce que loolu bu ko indee du ngeen am déception. non non yow Siteu gisoo lu mu la da ngeen Baye Fall. ci réserver boppam non même mais dina réserver boppam. ana ponkal bu taxaw ne lëng-lëngaaral. waaw ah ku mel ni Siteu ñu ne yow mënoo yëngal la da nga ñëw yëngal ko. loo ko. mais Siteu tamit ginnaawam xoolal lu si nekk nekkul sax xaajaate xaaj mi nekkul si ginnaaw la da ngeen. am na loo xam ne du ko maye. yee tamit duñ nangu loolu suñu mbër di bëre loolu. barki alxuraanu karim mais Siteu moo fi def la da ngeen lu ko mbër musul def si àdduna fi nit du ko dindi. déggoo ma xanaa mais waaye yow ñu ko mais dafa mel ni ñoo daan Lac de Guiers bëriwul puusul jour boobu parce que dañoo waxoon Lac de Guiers moo ëpp Siteu doole mais loolu yëpp feeñu fa. ana Modou Lo tey daa mën a daan Lac de daanu ko. ah ana mbëri fi bëreeg Modou Lo amaa ah, mais Ama xam nga si kan la jóge waaw si Papa Sow la jóge bëri jéeg Modou Lo. bëreeg Modou Lo Modou Lo daan. ah. waaw Siteu fan la jóge Siteu ci Lac la jóge. jógewaat si jógewaat ci Papa Sow. jógewaat ci kan. jógewaat ci ci waaw ci Papa Sow la jóge dal ci laata ngeen ñëw bëreeg Modou ñëw bëreeg Modou Lo. kon tamit si xoolal tamit xoolal tamit si dafa jaar gaañ. mais tey est que li ngeen bëreeg Lac de Guiers loolu dañ koy xaar ci seen diggante ak Modou parce que ñu bari dañ ñëwoon Siteu bu dee lii la indil ci pois lour yi xaaruñu ko fii. non Siteu incha lu mu war a indi moom ah, bu neexee yàlla jours yi incha allah dina ko indi quoi. ndax Siteu xam nga tëddul di nelaw moo ngi liggéey comme nu mu war a liggéeyee ñu ngi si ginnaawam di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñun ñoo ngi fii nii instant bi commencé nañoo làmb bu yàgg yàgg yàgg barke alxuraanu karim royal la ñuy bëri te loolu man sam waaye dañ ko bëgg dañ ko soxla amul lum ñu jaralul jaral nañu lépp lépp jaral nañu ko. mais parcelle dama fa dem démb ñu ne càmm gën wax rek lañ mën. Hmm. bu dee wax bàyyeekoo ak ñoom mais bu dee jëf bu ñ ñëwee dañ leen di duma daan ah mais parcelle ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo baax di wax loolu rek ama yooyu noonu ay waxu folklore la ay xama ay ñii dañoo bëri wax mais ñooñu ku si si ku si ku si weet di nga xam mooy sa baay waa parcelle ñoom nañ wax loolu garaawul amul problème nañ jël lépp mais jours yi ñoom dinañ xam ne lépp dëgg la. mais ñoom gëmuñu ne yéen mën ngeen leen ñoom ñoo la gën a xam Siteu ñoom waa parcelle. Papa jaar na fi saa jaar na fi. so Zos su menacé ko jëlee ci stade bi. Hmm? mais man la sama waaye xam nga yàlla baax na ko quoi nañ ñaan yàlla rek ba jour ji incha allah suñu mbër yàlla defal ko jàmm kee tamit borom bi yàlla defal ko jàmm. mais parcelle lu tax respecté wuñ leen. duñu dara nag ñoom waa parcelle ñooñu. lay seetal duñu dërëm. waa parcelle ñoom ñoom la ñoom la gën a xam foofu duñu dara. 1 ba 26. c'est-à-dire na leen ko contre Papa Sow. 1 ba 26 bu ñu wàcc si arrêt. waaw cest à defal leen bagage. barki alxuraanu karim bu ma yaakaar. mais contraire bi ñoom nee nañ arrêt bu ngeen wàcc muloo daan si. waaw ñoom ñoo baax di wax rek ñoom xamuñu sax fan la arrêt nekk ñoom. waaw dañuy 1 ba 26. non non ñoom xamuñu sax arrêt yi ah ñoo ngi wax nii rek. gars dañ leen ko tàppee nii rek duñu ci dara. barki yàlla. coow li bari borom dëkk bi ne bu ñëwee day def barrage. frontière waaw frontière lu waral loolu. loolu am na sax ba pare. waaw loolu bi. Siteu ba mu ko waxee. si suba teel bi la gars yi jël frontière yëpp baare ko. doomu aadama du dugg fépp lañ tëj. mais gars yi nag yéen moomoo leen jàmm gën. non jàmm gën ñun ko moom. loolu force la loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. yàlla. barki yàlla. jàmm gën mooy ñooy borom. mais bis bu mel nii. combat royal ngeen koy jëm est-ce que mus ngeen am bis boo xam ne am na coowee ni yee maanaam Siteu Siteu yàgg naa bëri làmb coow. mais combat mais bii nii xëy na tamit xam nga dañ koy gën a mën a sax maanaam teg si yeneen i niveau quoi. Hmm. est-ce que comprendre nga. waaw yee maanaam leneen lu ñu doon doxee tey dinañ ci yokk leneen ak leneen. comme nan. waaye lu bëri sax loo comprendre lu bëri. ndax roi yàlla lu bëri. lu bari lañ ciy def lu bari loo xam ne sax man la sama waay mooy loolu lu bari lañ ciy def. mais Modou Lo bi bëree ak Ama Baldé. duma ko daan ko bëre ak booy Niang duma ko daan ko Modou tamit mën na koo tenir qu'on se dit la vérité. waaw mën na ko tenir. fu koy jaar. bu baax a baax Siteu mën na tenir Modou Lo du waa yow mun na ko tenir bu baax a baax te incha allahu rabil dañ koy tenir ba pare am si moom ndam incha allahu rabil ñun loolu gëm nañ ko ñun ndaay ñeme ngeen samp jaaga ak Modou Lo am joppin bu baax a baax. Modou Lo na xaar loolu. laay la. barki alxuraanu karim Siteu day samp ak moom jaagat. billaay wallaay wataay bu ñëwee si leneen mu fekk ko si leneen te incha allahu rabi amul lenn lu ñu si ëppalee du doole bi du xeex bi. mais yalmin bi moom day négocier ci poids lourd yi. si non Siteu mosul négocier si poids lourd. Siteu barki démb Ndiaye la fi bëri ak Lac de gis ngeen. waaw waaw amul lépp amul rek amul paa bu mu reculer Lac de Guiers barki al amul paa bu mu ko reculer moo ngi nii si image yàggul dara. barki alxuraanu karim. tarkindaa bi ngay waxal de gaayen mais Modou Lo man li ma caaxaan mun loo nee na samay moroom laay bëreel. ñii la jàppee morom. waaw oh, ah, mooy yoon mooy yoon ay moromam lañ. ay moromam lañ. ay moromam lañ. am na plein droit mu lool loolu ay moromam lañ ah. mais doole ji doole ji xaar ci yàlla min bi est que dina ko indi. Siteu di xale. Siteu xale la booy bu ndaw la Siteu. ba mu fiy soog a dugg si arène bi gis ngeen nu mu toll Siteu de waaye Siteu mun naa lamb ji nit ëpp fi Siteu doole lamb ji gisuma ko man. Modou Lo moom moo lay ëpp ah Modou Lo moo lay ëpp mais yàlla baax na <laughs> ba boobu. Modou Lo mi ngi ni jàkkaarloo ak yow loo koy wax ak waa parcelle. Modou Lo du ma ko wax dara suñu grand frère la na nekk si jàmm borom bi defal ko jàmm ba jour jooju mais man la sama waaye lu làmb ji woote lépp lu làmb ji laaj incha allahu rabi si te taalibe Bàmba dina ko ñëw def ko. Hmm? waaw ñaanuñu ko dara Modou Lo amul luñ koy ñaan ñaanuñu ko dërëm. waaye yow luñ dañ koy ñaan dara bam ñuy may bu mu ñu may dara Modou Lo bu mu ñu may dara ñaanuñu ko dara te dañuy jëli ji luñ fa am incha allah. Siteu Modou Lo caxasoo foofu lan moo fa mun a am. lu bari moo fa mun a am. Siteu doomu séeréer la gaayen. Modou Lo bii di jaar ci falaay. waaw Siteu di doomu séeréer. Siteu kon lan lay def moom ah lan lay def bu Modou Lo di jaar si falaay Siteu nan la war a def. kon xanaa Siteu dafa war a naaw kon mbindeeloo look moom. Siteu dafa lijjante ay Modou ay bëre Modou Lo wala bëre keneen barki alxuraan ko lijjante wu leen ndax dàqu ñu ko bëre ëpp ñu ko doole. ñu gis ñi mujjee bëreel yëpp ci xale yi da leen a duma. ay booyoo ay booyoo mbër lañ nag. ay du ma ay mbër lañ la du ma ay mbër de. mais ñooñu ak Siteu ñoo bokkul. Siteu du Ama Baldé du Boy Niang. est-ce ñooñu ëpp ñu ko doole. waaw yow kan. ama bàyyi su dee quoi yow <laughs> gaañ yow ama bàyyi. Lac de Guiers laa mujj a bëreel kenn daanu ko si arène bi. mais Lac de Guiers rek da nga ñëw nag. teg maanaam comme li lu ñuy wax quoi su dee am na ay parcours ay jéego yoo xam ne daf ko daf ko dox bàyyi gars yi gis ko. waaw. dama bëgg nga xam loolu quoi su dee dafa dox ay jéego nit ñi gis ko quoi. waaw mais mais jéego yi mu dox. est-ce que réussir na ko parce que. moom laa dëgg bu baax a baax lépp la réussir. walbit gang amul ñii ànd ak moom kontaan nañ lépp la réussir fu mu dëkk gars yi xam nañ ni kii nii man la sama waay mooy loolu. macha allah macha allah tarkindaa la. te ñoo ngi koy ñaanal borom bi defal ko jàmm rek moom. jaajëf billaay wallaay dégg naa ci kenn du yow gars jàmm si rek. waaw maa lay siyaar yow Baye Fall bi yow waaw ëppal bu yàlla mi nag nii nuyu àdduna. waaw di siyaar suñu sëriñ. waaw sëriñ Sidi Mbacke alxuraan mooy suñu yaakaar tey ëllëg waaw di bëgg góor yàlla yëpp. waaw nga ne. <laughs> yalmin bi. waaw ñibbiseegul coow li bari na parcelle nee na 1 ba 26 bu ñu leen jàppee unité bu ngeen wàcc ñu daan leen. non loolu mënul nekk ñooñu déggoo lu ma waa parcelle la ñuy xaar. waaw déggoo lu ma la mu ngi si de. mu ngi liggéey de. waaw si temps di liggéey mais ñun ñu ngi fii nii di làmb. waaw. frontière yi gars yi wax. déggoo lu ma la borom dëkk bi bu ne weex na ñu ne tàll bu nee ñuul la ñu ne kooku. dëkk bi daal Issa moom moom jàmm gën jàmm gën ma laa jàmm jàmm gën ñun ñoo moom waaw jàmm gën suñu jàmm gën la wala mais làmb ji dafa mel ne da ngeen koo teg ci social wóoluwu leen gaay social yow non dañuy làmb rek affaire moom xam nga da ngay làmbtu rek waaw làmb moom da ngay làmb rek ba daj mais ñun déggoolu ma laa làmb ji xolo social loolu lañ yaakaar rek non non mhm. Modou Lo day xaar de Modou Lo lu mu yaakaar amul de waaw lan la foog Modou Lo laa la wax bu yaakaaree ni làmb ji day yomb du yomb de ah. waaw maa ngi dégg mu naan ay lu ñu gën a wax xam nga li mu lay wax nii affaire di gën a métti ñun ñun déggoo lu ñu la wax xanaa ñun bëgguñu lu yombu ah. non non yow xam nga ne yow boo xoolee Siteu si waaju mu juge ah ñëwaat si Modou nga xam ne xoolal Siteu yow baawul xel sax Modou waaw mais l'essentiel nag ñun dinañ ko jox cër xam nga lu mu moom dinañ ko ko jox mais l'essentiel la lu ma la mën a wax làmb ji duñ ko may dara waaw mais est-ce que du ngeen wàññi wax ji pour mu gën a sedd rek ci borom dëkk bi. déggoo lu ma borom dëkk bi ñaan woo dara de déggoo lu ma la yow borom dëkk bu ñëwee rek nga xam ne ñëw na. voilà ñun nag ñu ngi ceene di ko xaar quoi. waaw mais borom dëkk bi gars ne pour mu daan Modou Lo il faut que mu indi doole ju bari doole jooju est-ce que mi ngi koy liggéey. mu Siteu. waaw Siteu déggoo lu ma la yow mu ngi rey boobam États-Unis waaw Siteu ñun xam nañ ko ñu àndale ñun Siteu seul la ñuy topp. waaw ñun Siteu rek moo ñu jaral li toog déggoo lu ma la waaw wër na borom daaru salaam mais déggoo lu ma la Modou Lo bu yaakaaree ni day yomb mu ngi nax boppam da ñun bu ñu may dara dara ñaanuñu ko saraxuwuñ ko dara. waaw moom Modou Lo Modou Lo ah. waaw ñun ñaanuñu la dara te bul ñu may dara. voilà te ñun loo ñu may ñu indi ko biir jàmm gan laa lay wax ni bu dee xeex bu dee xeex pare nañ pour lépp bu dee bëre pare nañ pour lépp ñemewoo leen xeex ak Modou Lo. barki borom Daaru Salaam ak gaawaan laa lay ni ku dul Modou Lo sax laa wax ni ñeme nañoo jàmmaaloog moom. dóor Eumeu Sène mu daanu. waaye ban dóor Eumeu Sène ñun xanaa gisoo kaaw ñu am si làmb ji yow. ah yow xanaa gisoo Siteu daa dóor daa dóor jos mu nelaw. ayda. dëggoo lu ma la ñun dañoo pare pour lépp. nga xeex la ñu wax. waaw waaw. bëre la ñu wax de bëre dóor. ah. dama lay wax lu leer de. si combat bi ñu gis boobu ba léegi da noppi Aziz Ndiaye sax moo leen xaw a laal borom dëkk bi xaw a génn xaw a wax mais combat boobu ba léegi dafa noppi woon lan la. déggoo lu ma la xanaa kookoy borom dëkk bi kooku déggoo lu ma la bu génnoon def benn affaire bu ndaw nii rek laa lay wax jeex na mais ay ñun Aziz Ndiaye man ñooñu noon sax laa wax nii ñooñu bàyyi ma leen xel kooku day rambax man l'essentiel laa lay wax nii làmb ji laa wax ñun dañuy làmb te dañuy fat fépp waaw te gars yi bàyyi buñ tëbaski ba pare sax nga xam waaw buñ tëbaskee ba pare nga xam ni xoolal laa lay wax nii xoolal yow bàyyi bu borom dëkk bi ñëw rek. waaw ëppal a ngi nii de si xel si maayen ëppal bu yàlla bi kese waaw wër na borom daaru laa wax nii waaw. Saliou kaay sànni sooy kàddu waaw di ñaanal ñëpp jàmm nag waaw di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal laa lay leen di ñaanal jàmm. waaw adduna bi yàlla na ñëpp am jàmm waaw waaw na ñëpp am jàmm nag waaw di ñaanal sunu mbër mi xam nga li mu laax ni mu ñibbise jàmm ñun ñu ngi koy xaar moom xolo bu mu xalaat dara waaw gaa yaa ngi nii gis nga chaque jour ni ñun heure boo ñëwee ñi ñuy fekk fii nii ñu ceene waaw waaw ndax làmb ji nii làmb royal la làmb ju mag la waaw waa parcelle ñu ngi lay seetaan loo leen di wax. waa parcelle ne leen ëppal ëppal a bu yelmin bi yéen di xaar fépp laa leen di wax nii waaw te yéen bu borom dëkk bu ñëwee bu soobee yàlla sunu borom ngeen xam ne xoolal lépp dëgg la waaw ku ko mun a koy jéem du doon waaw yow si ta kese. bëgg naa la gaynde gi. Baye Fall bi magalaat bu wér. lépp jàmm lépp taw fee xëy. <coughs> bis bi ngeen jëm coow li bari ku ne di wax. leer kay waaw parce jàmm gën moo baaxoo lam bu mu am rek wax ji day bëri quoi waaw loola waral wax ju bëri ji. Mm-hmm. mais est tamit ki ngeen am tollul noonu. muy kan si Modou Lo. waaw non adversaire la comme yeneen adversaires yi rek. Mm. waaw adversaire la rek ndax si da tey jii nii dañ ko xamee ba léegi depuis premier combat man la sama waay ba léegi nii làmb bu mu jël ñu ne kii xanaa day xaru lool moom rek moo ko fi si mbëri parce que Serigne Bamba kon tey jii loolu noonu du gan si ñun quoi ay si xanaa day xaroog yooyu noonu mais gars fu ñu teg nii Siteu mënul daan Modou Lo amul doole ji. waaw loolu noonu parce que maanaam ñi nga xamul ñooy wax loolu fii chaque combat bu ñëwee même kàddu lañ leen di wax ñun Siteu dañ nga xam démb te soog a ñëw. kuti ba mbow mbote ba kuy barki Serigne Bamba Mbaga mbër dañ nga doon yóbbu mbapat laa la wax mbapat mu tourné gis lépp ay ñaaw ñaawteef barki alxuraan bu ko neexoon xaddi mais Sénégal dama bëgg ñu xam benn affaire maanaam Siteu du tapet loolu laa bëgg ñu def ko seen xel yi preuve barke Serigne Bamba Siteu du tapet loolu laa bëgg ko seen xel yi ay kanta ay waa jàmm wax lañ bëgg ay wax rek lañ ci am nii ak nii yooyu yëpp ay bataille psychologique la loolu ci laamu lañ ko fekk mënuñu koo dindi mais dama ne la parcelle amul mbër bu cuub Siteu waaw wax laa la wax amul mbër buy cuub Siteu A ba Z ësel ba ëbët. Modou Lo mënu leen a cuub. déggoo lu ma la bis buñ cuubee ñun ñu nangu te xam naa ne du ñu mës a cuub moo tax ma ne la parcelle amul mbër buy cuub Siteu loolu yëpp ay bataille psychologique la rek fi gis nga mbër ñëw jàpp mbër fii waxul la neex waat fi ay vaar génn mën a sam waay après fa lay mujjee damaa juum maay jégalu te Siteu tey jii ni mën a sam waay képp ko xam xam ko ci làmb xam ne képp ku mu amal combat da nga koy dégg li ngay bañ a dégg da nga koy dégg waaw kon tey jii nii maanaam bul bëgg a wax ni dara ba tax nga koy yàqal wala nga koy sigel mooy loolu Siteu da nga koy yàgg yóbbu mbapat ñi nekk ci làmb ji yenn paay ñoom xam nañ yàgg na dem seen i tournoi di ko rajaxe ak lépp waaw grand boobu tamit waxi nopp naes tey ji moom dafa rampe ñun ñu rampe tey ji looloo ñu boole si làmb mais ñun ba ñuy dugg si làmb nekkul ay pour Modou Lo moo taxoon ñëw wala dara la couronne moo ñu boole woon si làmb pour ñëw bëgg jël ko mais dafa tombé ak Modou Lo yor ko moo ñu boole ak Modou Lo Modou Lo de nee na ku ci teg sa loxo mu dagg. waaw déggoo lu ma la wax loolu ñun ñoo ko ko njëkk a wax avant mu kaa wax waxuma la sax loxo. taxandeer sax dañ koy dagg ñun. xanaa xam nga. mais moom moo ko yor yéen yoroo leen ko. déggoo lu ma la wax moo tax ma ne la laa wax takkandeer bi sax dañ koy dagg avant moom. waaw yow wax day jeex ñun fu ñu jëm ragaluñ ko de. barki Serigne Bamba Mbacké ñun Siteu na bëgg rek soxla woon Bombardier wala Tapha sax day am problème. mais tey ñu gis benn seen lutteur boo xam ne temps yi dafa xew ci réseaux sociaux yi. bébé Elton mu ñëw di wax ak yéen du leen kojee. bëre boobu maanaam man leen laa koy dénk. waaw dama bëgg mu xam leen si laay fa maanaam moom jafewul gis. non non pour gis ko comme bonjour. dama doon xool ba xam moom maanaam si lu mu doon wax noonu mu ngi si dëggal boppam wala déet ñun fu ne la ñuy dem barki alxuraan karim ba biir géej waaye boobu mu dëkk dañu fay dugg every ñu neexee parcelle ak na yaru rek maa ngi dégg mu naan ay si da bu dof dof loo ay États-Unis laa koy fekk foofu dafa sori xam nga États-Unis passe daa métti xoola bu mu ñëw jaama ñu naan affaire sot la moom nañu wax rek fi ngay fekk ñun dajeeg moom barki ñu yombalal ko ñoo gën a dof aller retour na daw jàmbaar daw fu góor moom da nga koy xool sax yow doo xam looy gis si moom xamu ba xam mu bëri la xamu lu mu doon mais maanaam réseaux sociaux yi léegi moo neex ku jóg bëgg am loo wax taxaw nii Bébé Elton lan la daw koo fa la toj kan moo ko xam yow kan moo ko mujjee daan fii zoo technique. zoo technique waaw ah, Bébé Elton daa daw dara. victoire la jógee daa dóor mu daanu de. kan la dóor mu daanu. ah mbër la dóor mu daanu. waaw ban mbër kon mbër boobu na tekki ngeemam de man kook buñ jaamaar la woon fii maag moom barki alxuraanu karim day daw wëri jaay mboxam mais na bàyyi Siteu Siteu du moromam ki topp si Siteu sax du moromam. yee kon réseaux sociaux yu tiim la ngay wax nii di wax waaw mais baax na yàlla baax na du nee naa daan jafewul gis nañ dawal période bàyyi combat bàyyi ñëw nañ dawal dina noppi par force. combat bi ngeen jëm wax naa ko sànq ngeen ñu gis ne combat bi jàmm gën daan nañ fonk combat mais combat bi dañ ko gën a fonk adversaire bi moo tol noonu wala titre roi des arènes bi gis nga ñun ñun ñun dañuy suivre làmb ñun nekkatuñ tollatuñ fu ñuy naxantee si làmb Modou Lo tey jii dafa nekk mbër boo xamante ne da lay indil stratégie bi ñëw taxawee ne ndax la daan la ñu nag foo ñu woo Alioune ba mooy loolu noonu dañ la fay wuyu déggoo lu ma la wax gaañ si te day bëree bëree bëree bëree bëree ba laxasoog iwil nga jàpp xëcc mu rocceeku ñun loolu nga xamee yàgg nañ ko yóbbu mbapat fu ne kon tey jii ñi xamul ñooy wax si moom naan Siteu nii Modou loo nii li ma leen waxoon laa leen waxaat dama bëgg ngeen xam ne Siteu du tapet te ñi mu dëkkal du ñu ay tapet jàmm gën ragal du fi dëkk Siteu bu nekkon tapet du bëreeg ben pongal ñaata pongal la fi bëreel ñu ne ki tay mu rey Siteu fa la mujjé la da guerre mi mo si mujju gaan ki nga xam ne mënu ko daan dañ ko bëreloo bu muy direeku ñaari omo mi déggoo luma la wax comme daardaaru golo da ko xoss ci tribune bi ba ay gaan ma jégalu wa parcel ñi ngi lay sétan dernier kàddu loolu parcel nekk leen si jamm préparer leen seen mbeur waajal ko comme ni ko doon waajalee ñu jappat leen jaarati leen fu ñu leen doon jaar parcelle du ñu mësat moy lool noonu seen jamm ci yeen rek waaw kontaan ci yow nice ñëpp kontaan si yow jàmbaar.